ngir xam lan mooy seen taxawaay ci wàll wi yéenekaay bi ne président de la république Bassirou Diomaye Faye nag dugalati na waa conseil constitutionnel ci yoonu assemble national l'info yëglekaay xëyee tey jii ci rapport final bi nga xam ne rek moo tukkee ci assise de la justice yi ñu doon amal yéenekaay bi ne ñàkk déggoo am na ci réforme yi nga xam ne rek moo am ci biir conseil supérieur de la magistrature lu ci mel ni présence président de la république ministre bi ñu dénk wàllu justice ak ubbeeku yenn ci ay personnalité extérieure ci biir conseil supérieur de la magistrature le quotidien yëglekaay xëy tey ji àddu jëmale ci wàllu barça wala barsaq yéenekaay bi ne fi mu toll nii nag am na ay migrants yoo xam ne rek ñàkkati nañ seen bakkan ci géej gi bokk na ci fukki koor ak ñeent yoo xam ne rek ay doomu Sénégal lañu ak ay doomu Mauritanien ñoom nag la ñu fekk ñu daal di faatu ci ab embarcation boo xam ne rek dafa lajju ci république dominicaine Vox Populi nekk wàllu émigration clandestine bi kay nag wala trafic international de drogue nag am na fukki squelette yoo xam ne rek daat nañ leen di nemmeeku di ay doomu Sénégal ak doomu Mauritanie ci benn gaal goo xam ne rek dafa teer foofee ci république dominicaine fukki kornetu cocaïne ak ñaar moom la ñu fekk ci biir cadavre yooyu enquête yëglekaay ne fukki sénégalais la ak ñeent yoo xam ne rek bokk na ci ay doomu Mauritanie yoo xam ne rek ñàkk nañu seen bakkan ca waaxu Rio San Juan embarcation boobee nag dafa la ju fukki koor ak ñeent ñu daal leen di fekk ci biir gaal googu Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières di sàkku nag ñu daal di ubbi ay information judiciaire wala ñu amal ay assises de la migration beneen bi yëglekaay yoon daal am na beneenub gaal goo xam ne rek teer na ci San Juan mu di ab gaal goo xam ne rek dafa yoboon ba fees ay sénégalais ak i mauritanien moom nag moo daal di teeree ci république dominicaine bu ñu sukkandikoo ci premier élément yi nag gaal googee ma nga doon dem ca île des Canaries nag ginnaaw gi nag si la daal suux teeree ji ci Rio San Juan waaye bu ñu sukkandikoo ci carte d'identité yi nga xam ne rek moom la fa fekk yéenekaay bi ña moom la gune yi di amal ci biir géej gi nag bëri na lees waxu lu ne ca gannaaw ndax gaal gi ñu fekk ci république dominicaine bu weesoo koor yooyee nag gis nañu fa lu toll ci fukki cornet ak ñaar ci ay cocaïne yoo xam ne rek dañu ko boole woon ci embarcation bi wax ci le Témoin yëglekaay moom mi ngi xëyee tey jii ci wàllu nekkinu askan wi yéenekaay bi ne Jomaay Faye ak Sonko nag ñetti équation yi ñoo gën a complexe ci seenu nguur bokk na ci wàllu immigration clandestine wàllum inondation yi ak wàllu ñàkk xëyum ndaw ñi libération moom xëyee tey jii ci bi nga ne rek gis nañ ci ay chamboulement yu mag a yoo xam ne rek amal nañ ko ci administration territoriale bi yéenekaay bi ne Ousmane Kane mooy gouverneur bu yees bu Ndakaaru Assane Fall jamono ji nag mooy gouverneur bu Saint-Louis Nitdoff ak Kilifeu ak Modou Niang nag ñoom itam nommé nañu leen ay PCA lu jëm ci entité yi nga xam ne rek moo soxal secteur public bi nag am na projet de décret boo xam ne rek ñu ngi koy amal mu di appel à candidature boo xam ne moo soxla recrutement yi ñeel chef d'organe yi te loolee daañu ko jëfee ci weeru septembre bi ñu jëm jëmale nag ba tey ci li nga xam ne rek moo soxal nomination yi nga xam ne amal nañu ko ci gouverneur yi préfet yi ak sous préfet yi yéeni kaay bi ne jomaay ma ngay chamboulé administration territoriale bi juróom-ñeenti gouverneur ci fukk ak ñeent yi nag daal di nañ leen di soppi Alassane sàll bi nekkoon ci Dakar yóbbu nañu ko ca Saint-Louis kii di jajaaja nekkoon préfet bu Saint-Louis moom jamono ji mooy gouverneur bu Sédhiou madame Ngoné Cissé nekkoon fi préfet bu Guinguinéo moom nag tabb nañu ko mu doon gouverneur bu Fatick Seyda Dia nekkoon préfet bu Guédiawaye nekk gouverneur bu Matam xalaatam Moustapha Diop mi fi nekkoon préfet bu Kaffrine ñu daal koy tabb mu doon gouverneur bu Kaffrine Moustapha Ndiaye mi fi nekkoon préfet bu Pikine doon jamono ji nag gouverneur bu Kolda sous préfet bu Dakar Plateau nag yóbbu nañ ko ci beneen fonction yéene kaay bi ne ay nomination yees tàq la yoo xam ne rek mi ngi bàyyeekoo ci conseil des ministres bi ñu doon amal bokk na ci kilifa ak ñi dof naka noonu doyen Mody Niang mi nga xam ne rek tabb nañu leen ñu doon ji àddu jëmale ci insécurité bi ñu nemmeeku ci wàllu dem beeg dikk yéenekaay bi dellu siwaat ci accident yi am ci wàllu circulation bi agression beeg sàcc si nga xam ne rek dañu koy faral di amal ci kaw tali bi rawatina fii ci ndakaaru yéenekaay bi ne ñoom moto jakarta yooyee nag ña ngay gën a fësal seenub taxawaay ci biir secteur bu transport public bi rawatina livraison yi xam ne rek ñu ngi koy amal saay su nekk ñàkkul ay conséquences yoo xam ne rek mën na koo jural askanu ndakaaru mu jëm ci wàllum ñàkkum kaaraange ci kaw tali bi yi am ci wàllu circulation bi agression yeeg sàcc si nga xam ne rek ñu ngi koy amal askan wi ne ci biir yëglekaay bi jakarta fi mu toll nii nag yóbbu nañu seeni fit yem leen fu leen yàlla yemul addu jëmale ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi ne lu jëm ci wàllum final yi nga xam ne rek moom lañ doon amal ci cent dix mètres et yi kii di Luis François Mendy nag dañu ko éliminé ci Jeux olympiques yu Paris deux mille vingt quatre beneenub yëglekaay mi di réew mi sport moom ma ngay xam ne nag confidence yi nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci Sadio Mané jëm ci alaan ñeel avenir am moom nag ma ngay xam ne nii lépp mi ngi jaar yoon jeexaleeg lu doy waar li nga xam ne rek moo xew ca États-Unis ñetti doomu Sénégal yoo xam ne rek dañoo faatu yéenekaay bi